ñu ngi ci arbaona nawawiya fukkeel hadis ak ñeent an ibni mas'udin jëlee nañ ko ci ibnu mas'ud radiyallahu taala yàlla na ko yàlla gërëm qaala nee na qaala rasulullah yonent bi nee na laa yaxillu du dagan damum ri'in deretu ascam deretu nit ki du dagan koo xam ne nag muslimin ab jullit la illaa bi ixdaa thalathin lu muy ci benn ci ñett yii ma lay bëgg a wax thayibu zani dégg koo xam ne danga njaaloo thayibu ab janq thayibu ab janq zani ku njaaloo mooy ku njaaloo rek ndax bu fekkee ne dafa nekk ab janq wala waxambaane woo xam ne mësta am soxna walla jigéen joo xam ne mësta am jëkkër kooka li ko war mooy dañ koy dóor ki nga xamne amna am na ko amna am wala amna soxna dañu wara gas ba mu xoot dugal ko ci biir jam ko xar jam ko ay xeer ba mu dee loolu moy atti bi dégg nga bennangoog wa nafsu bin nafsi ak bakkan bu ray bakkan ku ray nit dañ ko wara ray ta tay ko ku ray nit ta tay ko dañ ko wara ray wa tariku li dinihi ak ku genn al mufaariqu lil jamaa dal di tàqalikook mbooloom jullit ñi mooy ku murtad kooku itam dañ ko war a rey dañ ko war a wax na delsi su bañee ñu rey ko dégg nga loolu de incha allah